dal leen ak jàmm mbokki internet yi safoo di seetaan Buzz M TV cant ak ngërëm ñeen na leen si topp bi ngeen di topp seen bi ñu daal di dikk li gën a fës si xabaar yi nekk ak actualité bésu tey bii la élection présidentielle 2024 ñu diktal leen nag ay information yoo xam ne képp kuy vote ji war nga koo ngànnaayoo door a dem képp kuy vote ji dan lay tere nga yore mandargaay candidat bi doo sol benn yére wala tubéy wala lepp luy wone ne candidat bi nga andal ku jël tamit bulletin sa candidat ba def ko ci enveloppe bi waroo koo li lepp nak euh, boko defé do doo voté wala sax nak sa voté fay nil manam do dégg do dégg ñuy joxe résultat yi di wax ne bulletin nil boba yow mi sa bulletin dañ koy bolé ci bulletin nil yi nga xamné nak dañ koy faral di lim lenen li nga xamné amna boko ci élection yi nga xamné nak ci lañu nekk 890 électeurs ñoo wara voter 15633 bureaux de vote au Sénégal ak 807 bureaux de vote ce bitim 50 50000 tak der pas voté. 1568 observateurs nationaux ak 899 observateurs internationaux n'ont wara voté. sénégalais yi war a tànn juróom meelu président de la république ginnaaw président Léopold Sédar Senghor ak Abdou Diouf Abdoulaye Wade ak kii di président Macky